ñan euh, tey nag maa ngi fi am ki nga xam ne rek moo di mbay Ndiaye. Mm-hmm. mbay ñu ngi lay nuyu Ndiaye. Euh, maa ngi lay fay. Mm-hmm. aussi di nuyu la président de la république. son mm-hmm. excellence <laughs> le président Macky Sall. allah di ko ñaanal jam euh, l'homme au dialogue. nga xam ni waxtaan dong la bokk. ngir réew mi jëm ci l'émergence. et émergent et émergente. nga xam ni woote na macha allah di la nuyu sëñ bi. waaw ah, di wax ni lay nuyu ci turu président mi nga xam ni jam dong la bugg di la nuyu ci turu président mi nga xam ni jam dong la bugg mhm. waaye yow ma lay nuyu ci jami président mi nga xam ni jam dong la bugg di la nuyu ci jami président mhm. mi nga xam ni jam dong dong dong Labouk mm-hmm. di la nuyu di nuyu Sénégal di nuyu ñu bugg jàmm mm-hmm. alhamdulilah euh, ci jàmm jooju sax mm-hmm. ak yow euh, ni ko nag euh, président Macky Sall na dialogue mu am na ñu ni nag dinañ ñëw ñoo xam ne nee nañ ce que dinañ ñëw léegi nag yow loolu nan ko gisee waa di nuyu Khalifa moom nee na fa yàlla bugg naa wuy dialogue bi Khalifa loolu day wane ni démocrate la ku bugg réew mi la ku sopp réew mi la moom Khalifa Sall di nuyu Karim Wade moom ak baayam wax dëgg fa yàlla wax nañ ni ñoom it bëgg nañoo wuyu si ci dialogue bi loolu day wane ni ku bëgg réew mi la. Mhm. ku sopp réew mi la ku ànd ak baneexu réew mi. Euh, waa jooju. Ousmane Sonko waaw. bëgg maa tudd turam wax dëgg fa yàlla am na tur yoo xale bi teg temps ci dëkk bi waa jërëjëf xale bi yor loo bës bi Ousmane Sonko mhm. man dafa wax loo xam ni reetaan la ma def te defe naa ni yéen ñëpp war na leen a def reetaan muy lan nee na dossier yi mu am. Mhm. gaaw gi mu gaaw moo ko jaaxal. mooy dossier judiciaire yi. nee gaaw gee ko jaaxal. Mhm. waaw lan moo waral loolu warulee daree. Mhm. war ngee daree war warulee daree. nee na gaaw gi moo ko jaaxal. Sénégal gi yow léeg-léeg nga dem ci béréb. doorang. dëgg la ñu gaaw dugal la. dëgg la ndax lan dañ laa xam. dëgg la justice dafa xam Sonko. di ko defaral rek bu ah, affaire yi gaaw dëgg de wax nga dëgg <laughs> loolu dong la loolu dong la dañoo xam ni Ousmane warta nekk kuy rang mm. ñu naan ne topp rang bi na topp rang bi Mm. mbay ki yooyu lay lay lay tëkkale ak Sénégal naan ay rang bi lañ ko bañal de bi lañ ko bañal ndax te wax te Ousmane war ta nekk di rang dëgg la ñu naan ko waa ma ngay rang ak dañuy jël dossier kooku dossier Ousmane la ay wa na gaaw nañ leen ko toppatoo mu gaaw jóg fii léegi lu tax parce que dafa war a dem élection lu tax ay ay pelantam lu tax ay pelantam di rang di xaar moom ñi oh. pelant yi lu tax muy xaar oh. Euh, euh, euh, eh, war ko woon a laaj loolu de. Ah, laajaat ma yow. père laaj ko loolu anti yow li ma la bëggoon a laaj sax da ngeen nga de. Eh. waaw ba tey nangu naa. doo ko laaj lu tax Sonko ay ay eh, ay boo la woo. ma woo boo fi continuer ñu mi nga xam ne rek. waaw muy leeral dañ lay woo man yow war nañ léegi yow pose sa question bi continuer nga wax ko nga ni lan nga bëgg eh. mu laajte ko plainte yi di xaar dañ comme neen Ousmane dañ koy eh, jàllale xam nga eh, xam a ko dëgg yéen ñëpp témoin laaj laaj laaj damaa ah, laaj. ah mais dalaa laaj. ay dañ lay aji bu damaa laaj aji bu sumaare aca ñëwaat. léegi li tax euh, dañ lay ajo bi léegi. léegi euh, li tax euh, ki nga xam ne rek moom moo di ay plainte Ousmane Sonko di xaar. Ah, yow it loolu bëti laajal. pelente Ousmane Sonko yi tax ba léegi kenn tontu. laaj ma laaj ko Ousmane kañ lay dem. Eh, xam nga Ousmane incha allah dina woo nañ la moom lay laaj ji plainte yi plainte yi laa plainte bi laa wax lu tax moo xaar plainte mi lu tax kenn tontu waaw eh, moom it loolu lay laaj déedéet ba waaw dialogue bi ay <laughs> ñëw. déedéet. waaw euh, macha allah déglu ko. fii dëkk professionnel la. Omar. yi kenn bi kan moo d'accord actuellement. waaye dialogue bi Khalifa moom nee na wax dëgg fa yàlla amul lu muy bañ bugg na. mimi moom. nee na xalifa a waxal man pour ma wax. mimi ah moom mi mi kenn woo ah, ko. dialogue bi ñëpp ngeen woo nag. mais mimi day ñëpp ngeen woo. non non Ousmane Sonko ñëpp ngeen woo. Ah, ah ci la bokk fan force. fan bokk mi mi lu ko def ku mun ta gagné bureau de vote. Ah, ah mun ko wane fan la mun a gagné. Ah. Grand Yoff fii lañ ko wax ne <laughs> mimi daal di koy. mais moom it nee à Grand Yoff ñu législative yi mooy ko mimi nee à. non kii Mbaye. Eh. mimi non Mbaye. Eh, muur sax waxoon naa ko. kii nga jox assemblée nationale lañ ko gagné mu bëgg mu. kii nga jox assemblée nationale lañ ko gagné fi fi mu dëkk. Euh, Sonko dégg nga Mbaye législative yi moom moo leen gagné fi nga moom moo leen gagné. moo taxaw ci télé déglu ma moom moo taxaw ci télé bi. déglu ma am majorité bu bari ñëwal. Mimi président def ne ko Mimi. dañ lay tanal élection léegi dañ ngaa dem ci élection yi sa biro de vote foo bugg a juddoo. waaw Grand Yoff. ñu bind Mimi nee à Grand Yoff. Mimi dem Grand Yoff ñu wutal ko bureau de vote. mu mm. tanal boppam bureau tanal boppam fi muy juddoo ñu gañe ko. Mm. Mm. élection di ñëwaat président ne ko Mimi mu ne ko teetee Grand Yoff ñu ne mu ne juddoo fa Kaolack Kaolack.

sooy eh, dama lay ñaan rek ngir yàlla mais dégg li non non eh, mais sooy bàyyi ko rek continuer bàyyi ko waaw ñëwal continuer boo ci nekkee ñu woo mbay continuer li ngay wax bu la la neexee eh, mais mbay continuer yaa ngi leeral dañ lay gis nga xool mbay damay wax ñu woo la mbay eh eh wuyu ma continuer ci li nga doon wax da la woon wax dafa am solo da nga doon wax ni mbay arrêteel judd yi da nga ni mimi <laughs> danga ni mimi danga ni mimi. grand yëf la waxoon. waaw baneen mu jógee fa dem ca kaw la ñëwal ci dialogue. léegi euh, ki dégg nga Ousmane Sonko nee na ki nga xam ne rek moom moo di euh, euh, Mame Mbaye Niang du jot du du du du. loolu waxu jot sax fukki dërëm loolu waxu kii la wallaay waxu kii la bàyyil ba ba armée bi war ko ne ko di nga yam doo fay. mu naan du laal fukki dërëm ma wax muy ñangal naan du laal fukki dërëm. dërëm sax du ko jot. yow justice wax la ne dangay fay 200 millions mu ne du fa laal. fukki dërëm nañ kañotal Mame Mbaye Niang. ñoo mun nañ ko armée kañ la daan fayeeku. Eh, ku la wax armée. waxuma armée de. mu yaa xaaral ba armée bi wër ko. mais Karim Wade yaa ko wax yaa <laughs> ko mbay armée kañ la doon fayee. dañ lay woo euh, nii ñu. sooy xoolal eh, ah, am na lu may seet dañ lay woo léegi. ah ngi leen ah, ah waaw mbay dañuy diggante ak PDS Karim Wade fay na. wala fay na allah wax dëgg fa yàlla joxe na xaalis bi jot nañ ci. Ah, kon kon nit ñi nuy xëy. kon Karim dafa war a fay. day fay fay na ko ñaata la fay. kii de 140 milliards yi. kii la ko jaarale bato si bato lañ ko dugal mu ñëw. <laughs> ay mbay mbay Ndiaye Karim Wade fay na fay na. xalifa kon xalifa. xalifa fay na. kon da ngeen koy bàyyi. daal daal lu ñuy def Aliou Sall. ma bàyyi leeral de eh, dañ koy woo de yaa ngi leeral sunu 400000. et eh, dañ lay woo léegi de eh, xoolal gis nga eh waxal ak moom dem sa dem ak dem ak woo la ñu woo ko de. damay laaj rek de. Ah, ah, dañ lay ah, am na yoo xam dañuy waxtaan na suñu biir daal am na loo xam nit bu ñëwee ci yow. na rafet di ñëw di la di di moom dafa nekk ci ay yitte sax yitte yi mu nekk moo tax. voilà oui ma mbay. Mhm. kon na yoon affaire yi euh, comme ni nga wax léegi. moom lañ kii moom lañ def ci kii bi lu tax kii boobu noonu. loolu lan liñ dugal noonu. lan lan lan la dugal moom Ablaye Wade bi Karim Wade xaalis bi moo tax ñu tuddee ko papa. stade bi. Ah. révélation bu bees la moom. waaw waaw macha que moom mooy nekk ak président. bi président ah? di wax président. macha allah fa yàlla def na interview bu am solo Assane laaj na ko lépp lu mu ko war a laaj président tontu na tontu yu leer. macha allah li ma ci demee protocole bi fekk nga ko. ah protocole beeg man tey damaa bëgg la laaj seen léegi. ah looy laajaat. voilà euh, Souka. Ah. xam dafa wax ni Karim fay na. waaw 141 milliards ñu dugal ko ci ay bateau indi ko. Mhm. mais li ma jaaxal Karim bari démb dafa wax ni. ñëwul d'accordul ci niñ ko àttee. ba ko léegi nan la war a wax d'accord loolu waxi kaw la waxi suuf am na. ah waxi kaw yow waxi ah, kaw ah gisante ngeen. gisante ngeen ba pare. gisante naa ba bañ a mais Karim ñëw fi guddi. guddi. ban heure la fi ñëw. yeeg ci Jakarta. Jaka ah ah. Qatar Jakarta ba fii. non bi mu wàccee aéroport ci Jakarta cak cak. xanaa ci guddi gi la ñëw delluwaat ci guddi gi. Mermoz président wax ak moom ñu waxtaan ci bo wax dëgg fa yàlla mu ne dina ñëw ci kii. yow ma defoon cak cak bi ma ne Idrissa Seck lay yegg Karim cak cak. ñoom ñëpp ay colis lañ. loolu ci laaj post bi ma yor kañ maa ngi. information yi nga la. ah da ngaa yow xanaa woote ngeen jël. man mii man bu buñ ma woowee euh, kat. dañ lay woo de <laughs> naan yi naa jikkaat. ok tey jërëjëf ala merci beaucoup. <laughs> kontaan nañ ci yow heure bu ñu am révélation yi neex ci ñun. donc jërëjëf eh. dañ may woo jërëjëf nan. <laughs> Adja oui donc euh, kàddu ayca mi ngi noonu merci beaucoup su koy mbay daane.